dal leen ak jàmm ñu koy tàqan yéenekaay xëy ndoo tàmbale ko Soleil yéenekaay Le Soleil yéenekaay na ci kàddu yi nga xamante si moom la président Bassirou Diomaye Faye naka la la wax naka agent de l'État ñi nga xamante si ñoo fi toogal nguur naka bëgg nañu rek ñu liggéey boo xamante dafay ànd ak jub ak jubanti boobee jamono naka yéenekaay bi di enquête ne passation de service naka ñoo nga ci am l'heure des la ko yéenekaay di tuddee yéenekaay bi ne wax jeex sobriété maanaam ci lu amul benn xumbaay ak rumbaay économie finance forces armées industrie yi ministre yu bees yi naka soobu nañu Mouhamadou Moustapha Ba ne nag ab yaakaar la boo xamante ni si jàppoon na ne am na njëriñ loolu réew mi moo ngi tey di dem si fonction yooyu nag waaye nag jàpp na ne ànd nag sa xel bu dal Diomaye Faye fixe le cap cap nag la di yéminikaay fi futal wax na nag ak ñi nga xamante ni si ñooy liggéeyal nguur il faut nag ñu taxaw taxaw tamit nag doon nga xamante ni si dañuy taxawal Sénégal ngir Sénégal gën a liggéey le Sénégal nag la mu bëgg moo di nag jub jubal ak joyanti boo xamante ni si moom la dal dee woote ubbil yéenekaay bi di formation sàkku na ci ñi nga xamante ni moo di liggéeykat yi ñu fexe bu incarner pleinement naka principe yi nga xamante ni moo tegu ci jubal jubanti loolu de mooy fula ji ndax itam jàpp na ne il faut ci yoon l'histoire jugera si nous avons fait correctement notre devoir loolu nag di kàddu yi nga xamante ni si Mouhamadou Ba yëkkati na ko ndax jàpp na ne fi ñu lañ ko doon matee doyee na ko yéenekaay bi di libération yéenekaay moo ko Abdourahmane Sarr nee na seenub yéene moo di fexe ba moo wéru ci wàllum naka xam nañ naka yéene kaay bi nee na danañ xam boo xam ndax liggéey nañ wala liggéeyuñu boobee jamono mu ngi mel ni Senghor Abdou Diouf Abdoulaye ak Senghor pension loyer véhicule sécurité ak li nga xamante ni si moo disposition des ex chefs d'état yéene kaay bi ne am na lu bëri loo xamante ni si jagle na leen ko Diomaye encense les fonctionnaires et les en garde fi naka caaxaan jeex na nga xamante ni ñooy liggéeyal nguur naka joomaay wax nag ñoom la ma bëgg rek moo di sëgg si liggéey liggéey boo xamante si jub jubante lay doon du am benn jafe-jafe du am benn gàllankoor loole la joomaay dal dee woote cadeau empoisonné de Macky Sall joomaay service à la dette yéeni bi ne fintoon am na si cadeau boo xamante jox na ko maanaam jox ko réew mi réew moo xamante ni si booy xool naka ñuul kukk la def ndax ay bor loolu tax yéeni kaay opinion bi boo xamante ni si daanu xam fi fa ñu jëm waaye itam nañ ko war a régler bu taxaw rek ci yittee askan wi yéene bi xëy na koo fasali l'observateur Diomaye Sonko comme des bêtes de nag yéene kaay nag a xajamal naka communication président Diomaye Faye l'observateur moo ni fi ni QVS naka déleste les 90 hectares naka scandale foncier foofee naka ca Kër Moussa yéene bi di laas moo ko xëy fasal Moustapha Ba naka moo ngay vanté fësal ñu ñu fësal leneen mooy li peuple nee na il y a une situation ni de paix ni de guerre yéenekaay bi ne joomaay kaful nag kaful de wax naa gaay naka liggéey la bëgg l'info yéenekaay ne appelu boobu Bassirou Diomaye Faye naka ci fonctionnaire yi nee na nag fi ñu toll nii nag daanaka farata ci moo di liggéey liggéey boo xamante ni si dafay ànd ak jub jubal joyante lii quotidien xëy nag ne gouvernement de rupture boobee samp ab laaj ne ne ay ministres yoo xamante ni ci wax rek la ñu def Abdourahmane Sarr ne ne le plus bavard des ministres de l'économie que Sénégal n'est jamais connu ubbi lii ne kaay Birame Souleye Diop ne defaree pas perdre moom nag war doon perdre temps di wax ay sponsoring ci li ngay moo koy xaar nag ci wàllum ressources des minières nag ministres yi nag dañoo waroon a inspiré ci Bassirou Diomaye Faye nga xamante ni ci daal waaye ay ministres am dañoo bari wax wax joo xamante ni daanaka booy xool tegul fenn lii quotidien moo ko xëy ko fësal liggéey lañu woote mbir yaa ngoog ñoo ko déggandoo jàngeen jëf ba ëllëg